mbokki internet net bi TV dal leen ak jàmm seen actualité du jour tey aljuma yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-benn si weeru mai atuma 2023 ñu daal di koy dooree li ñeel mbirum njiitalu Pastef di Ousmane Sonko gannaaw bi mu amee ab diir ca moom mi lee di njiitalu Pastef di Ousmane Sonko nag niki tey lay amal li nga xam ne rek mooy caravane de la paix ngir wutandi ca diwaanu Ndakaaru moom mi lee nag di njiitalu Pastef di Ousmane Sonko laata muy dem ca Ndakaaru rek daal nay xam leen rek. rek dina def ab caravane de la paix boo xam ne rek dina daal di jaar ci ay région yu bëri ci biir réew mi laata mu yegg si ca diwaanu Dakar moom mi dee di njiital Pastef di Ousmane Sonko dañ ne xam ne ni rek dina daal amal ab caravane de la paix boo xam ne yoon suuf bi lay jël ngir rek mu mun a jaar ci yenn région yi nekk si biir réew mi laata muy dem ca diwaanu ndakaaru moom Ousmane Sonko nag mu daal di xam ne ni mais Dakar dañuy daal di wutandi directement ca palais de la République ngir rek ñu daal di fay jëlee ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di Macky Sall ngir ñu mën a jeexal nguuram laata élection 2024 yi di ñëw bu ñu jógee foofu ñu daal wutandi ci assemblée nationale ci li nga xam ne rek moo fa daal di ne rek mooy honorable député di Guy Marius Sagna ak ki nga xam ne rek mooy ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome ci teewaayu premier ministre di Amadou Ba moom lee di Guy Marius Sagna nag daal nay jël ay question yoo xam ne rek daal na koy laaj ci ki nga xam ne mooy de Antoine Félix Diome ci li nga xam ne rek daan nañ koy nemmeeku ci biir réew mi mooy que saa su manifestation amee ñuy daal di fàtt ay ndaw ci yooyu le manifestation yi nga xam ne rek def ci daal di nemmeeku saa su ne ñuy buntu xatal ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi te duñu gis benn yoon ñoom ñi lee ñu daal di si àddu mu doon ay laaj yoo xam ne rek moom mi lee di Guy Marius Sagna laaj na koy samp laaj ko ki nga xam ne rek mooy ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome ba ci sa nit ñi nga xam ne rek daal nañ si ñàkk seen bakkan ci yile eh, manifestation ba tey eh, gisuñu justice daal ubbi ab enquête daal di koy jëmale si ñi nga xam ne ñooy faat yile manifestant moom mi lee di Guy Marius Sagna sax mu daal di xamle ni eh, bi day encouragé takk der yi nga xam ne rek jamono ji dañuy faat ndaw yi heure bu manifestation jotee ba tax rek moom mi lee di Guy Marius Sagna mu daal di jël ab laaj daal di koy samp ki nga xam ne rek mooy ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome moom mi lee sax di honorable député di Guy Marius Sagna mu daal di xamle ni rek lan moo tax moom mi lee

aussi bi mu génnee génnewul dara foo xam ne rek dafay daal di wane ne manifestant yi nga xam ne rek dañ nañ si ñàkk seen bakkan ab arme blanche moo leen daal di ci loole sa ñu nañoo gis ki nga xam ne rek mooy Guy Marius Sagna di xam Sonko dina bokk ci yile élection waaye nag Macky Sall du bokk benn yoon ci yile élection présidentielle 2024 ay ñu dégmal ci loole sa daal nañoo gis ki nga xam ne ne mooy Antoine Félix Diome di ministre de l' mu daal di jël kàddu daal di tontu Guy Marius Sagna li mu koy xamal nag seen leader mooy daal di tayle ay ndaw yoo xam ne rek dañuy génn sur le terrain gi affronté que ñi nga xam ne rek ñooy force de l' ordre yi waaye nag moom mi lee di euh, Antoine Félix Diome di xam ne ni rek xam ne ñooy ay ndaw yu conscient yi gisuñu kenn koo xamante ni rek dañ lay génn di manifester wu ba euh, bakk na ma di si daal di rot mu daal di xam ne ni rek bi la dëkk dafa am yoon ba tax rek force de gisee ñi nga xam ne rek ñooy ndaw yi ñuy def naka su dul noonu faw rek ñu mën a taxaw jàmmaarloo ak ñoom ci loole sa ñu daal di gis ki nga xam ne rek mooy premier ministre di Amadou Ba mu daal di xam ne ni rek ci élection présidentielle 2024 ñu dégmal képp koo xamante ni conseil constitutionnel validé na sa candidature di nga bokk si yile élection présidentielle 2024 waaye tamit képp koo xam ne rek bi le conseil constitutionnel validé wul sa candidature ngir nga bokk si yile élection rek doo dem mu mel ni sax moom mi lee di Amadou Ba daal dinay xamle ni rek si yile présidentielle 2024 ñu dëgmal dinañ ko def si ab dal te sax képp koo xamante ni am nga liggéey mun ngaa dem xëy du la yàqale benn yoon ndax rek dinañu jël ay matuwaay yoo xam ne rek dinañu jaarale yoon bu baax a baax si élection présidentielle 2024 ñu dëgmal kii di Bougane Gueye Dany moom dafa daal di xam ne rek lan moo tax kii di président Macky Sall muy wootee dialogue national kii di président Macky Sall dafa bëgg pousse yile élection présidentielle deux ans ci kanam maanaam ñu daal di koy amal ci atuma vingt 2026 ba tax rek moom mi lee di njiitu réew mi di Macky Sall mu ngi insister bu baax a baax ngir rek ñu mën a amal ab dialogue national boo xam ne rek dinañ si mën a waxtaan ba ñu mën a changer yi élection ñu daal di koy yóbbu ci atuma 2026 dialogue boobe sax le 30 mai bi ñu lañ ko fas yéene amal waaye nag jamono ji li ñu gis ne rek mooy ñi nga xam ne ñooy waa yeewi askan wi dañoo daal di jàpp fi ñu jàpp rek ne duñu teew benn yoon ci bile dialogue national fu ñu daal di koy jeexalee li ñeel mbirum Gabrielle Kane moom mi nga xam ne rek moo doon soutenir kii di ex masseuse bi leen di Adji moom mi nga xam ne moo daal di tuumaal viol kii di Ousmane Sonko kii di Gabrielle Kane nag ñu daal di woon nemmeeku rek mu nekkoon bras droit mi nga xam ne rek moo nekkoon si wetam saa su ne mu koy jàppale gannaaw loolu nak ñu daal di gis kii di Gabrielle Kane teewul benn yoon ci bile procès bi nga xam ne rek moo am si diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ca tribunal bu Ndakaaru ci li waral li mel nag moom Gabriel Kane daal dina si àdduwaat mu daal di xam ni jamono ji dafa bëgg mu nekk si jàmm ndax rek dafa daal a nemmeeku saa bu génne ngir jàppale ki nga xam ne rek mooy Adji Sarr ñuy daal di dal si kawam ñu koy sàgg ak di ko menacé mu dem sa ba moomilee di Gabriel Kane mu daal di xam ni rek jamono ji dañ koy traité de tous les noms lu ne lañ koy daal wax moom sax mu daal di xam le ni jamono ji loolu lépp daal dina koy yàqal ci li xam ne mooy viam waaye tamit ak moom mi lee di Gabriel kan mu daal di xam ne ni rek moo waral mu daal di ci mbir mi lee ngir rek mu mën a am jàmm mu nekk ay kàddu yoo xam ne rek moom mi lee di Gabriel Kane moo ko daal di ci journal français bi lee bu ñuy duppee Le Monde